ñuy remercier le président de la république son excellence monsieur makisal Sall si effort yi nga xamee ni dafa ko def ci vallée bi bi mu ñëwee ak tey programme PRACAS ku ne gis nga lim fi injecté si ay milliards si jëm si aménagement mais bi mu ñëwee ba léegi mi ngi assurer subvention engrais bi ginnaaw loolu matériel agricole bi li fi ñëw ñëpp xam nañ ni doy na bëri na même bu manqué li ko manqueel dama siy ñëw mooy concessionnaire yi ñoo ñu sonal matériel bi ñuy commandé adapté wul prix bi ñu koy jaayee dafa cher yàlla dimbali nañu nag daaw matériel bi ñu jënd ci Covid bi muy matériel à euh, moissonneuse à chenille moo ñuy dimbali tey ñu mën a avancer ci récolte yi ginnaaw loolu ñu koy remercier aussi ci li nga xamee ni bi mu ñëwee fekk ka fi def na ko baal na baykatu ceeb yi ci Sénégal 13 milliards donc loolu boo toogee war nañ la ko wax nga jottali ñu ko mais bi ci topp muy enlèvement prime fixe borom machine yi fi ne ak riserie yi yaakaar naa ni amoon ngeen jafe ku si toog transformé woo sax weer bu dee ñu indil la lu mu ndaw ndaw facture deux cent mille francs Senelec loolu président moo ñu si jàppale ba dindi ko ginnaaw loolu subvention padi bi nga xamee ni indi na ko te jotaguñu ko parce que joxe na accord am ba ñu dem ministère ba ñu wax ñu li des mooy mise en place wax nañu ak banque yi mais nag di ko remercier piqueur suceurs yi bi ñu ñëwee ak raa yi lekk tool yi président génne na 2 milliards jox ko producteur u vallée bi yëpp yàlla def ñu avance ñu un milliard mu am jafe-jafe monsieur le ministre yaa taxaw ca rek saisir Moussa Baldé baykat yëpp ngi fa woon donte sëñ Moussa Nawel def na si effort yu rëy yow yaa ñu yóbbu ba si ministre bi ba ñu jotaat un milliard bi des ñu la siy sant di la gërëm ginnaaw loolu am nañu ay jafe-jafe ndax man damay wax si turu baykat yi jafe-jafe yi ñu am nag boo toogee dafa baax ñu xamal la ko bi si jiitu mooy tey problème mu finance la ñu njëkk am. collège bi bi ñu ma ko joxee ak tey fu nekk laay dugal sama loxo amuñu benn moyen moyen de déplacement sax jafe-jafe la mais bi ma ñëwee lan laa njëkk xalaat mooy li ñuy laaj damay organiser benn atelier de diagnostic pour xam mbay mi lan mooy jafe-jafeem loolu moo jiitu lépp ma saisir sayet pour ñu financer ko ñu accepter ko mais ba léegi ñu ngi traîner seen kaw gannaaw mënuñu jot dara donc loolu jafe-jafe la ndax loolu moo ñu doon permettre ñu mën wuti ay partenaires am base de données. ba nga xamee ni dañuy mën saytu mbay mi ni mu waree benn jafe-jafe dootuñu ko am parce que bu ñu dépendre si sayet kese dama koy wax fii dañuy am jafe-jafe parce que sayet liggéeyalul baykat yi seen bokk la ñuy liggéeyal nekkuñu fi pour les producteurs la preuve fii bërki démboo Ndiaye usine bii ngeen di seen sayet moo ko yoroon yoroon mbay mi lépp da ngay gis ku ñëw rek indi camion ñu pesé ko benn yoon collé ko deux fois benn camion ñu ramassé xaalis bi yëpp lekk enrichir ay nit kese dédommagement bii fi ñëwoon pour wax leen ni SAED liggéeyul baykat yi fay nañ ba fay ay agent SAED jafe-jafe bi fi am si engrais yàggul fan yu néew ñu ko doon topp ay agent SAED fekk nañ leen si magasin ñuy jaay engrais donc boo ñëwee dafa baax loolu nga xam ko muy ay contraintes ya nga xamee ni ñu ngi koy dund bi si topp muy jafe-jafe picc yi picc yi sonal nañ ñu daaw ñun fii ñu bay compagnie agricole picc yi dañu nangu sama tool ma bàyyi ko récolté wu ma dara bàyyi noonu tool yi picc yi lekk ak ba mu jeex loolu jafe-jafe bu rëy la ren li tax ñu cité sëñ Moussa Nawel pourtant bi ñu amee jafe-jafe dem ci moom dafa taxaw pour ñu jot xaalis bi de ñëpp dañ ko rafetlu mais kilifa la président jox na ko cër te boo demee Joos toolam 80 pour cent production bi picc yi lekk nañ ko ba mu jeex dem naa fa visité ko boo demee seen huile picc yi nii nii mën naa leen jox vidéo yi tool yee ña ngay jeex tàkk waxuma nag yeneen producteurs yi comme nag kilifa la loolu moo tax ñu dugal turam pour président xam ni kat kilifa yiy bay sax am nañ jafe-jafe pour mu gën ñu mën a jàppale loolu moo tax ñu cité ko ginnaaw loolu damay dem si li nga xamee ni mooy aménagement yi aménagement amul boo xoolee SAED bi mu fi nekkee léegi PRACAS dañ ni chaque année dinañuy def 4000 hectares de nouvel aménagement 4000 hectares de réfection mais exemple union de Bundum laay joxe 3200 hectares la ñu amoon SAED daf ni aménagé na 800 hectares extension union de Bundum li muy cultiver lépp c'est 3333 hectares ana 800 hectares yi fay nañu entrepreneur bu yàgg lekk na xaalis bi dem yoonam loolu jafe-jafe la kon aménagement yi nañ ci gën a veiller bu baax a baax su ma jógee si aménagement yi damay ñëw si li nga xamee ni mooy matériel agricole bi wax naa ko léegi ñu ngi gërëm président def na si ay effort mais comme li ma wax concessionnaire yi ñoo ñu sonal il faut que état dem maison mère. yi nga xamee ni ñooy defar New Hollande wala Massey Ferguson indil ñu matériel boobu parce que ñaar yooyu kese ñoo fi baax mm-hmm. à part les matériels moissonneuses à chenilles yu ndaw yi ñu fi mujj indi concessionnaire yi lan lan ñuy def dem commander matériel ay pakoti indi Massey Ferguson ba nga xamee ni mook Valtra bi ñoo yam couleur kese mooy seen différence amul benn service après vente yi ñu fi joxee yëpp a ngi taxaw ñi yor machine yi mën nañ ma témoigner mm-hmm. donc loolu bu paasee ma ñëw si li nga xamee ni mooy problème mu engrais bi engrais bi monsieur le ministre dañ ci enrichir enrichir ay nit rek boo demee fii ci Mali engrais tout taxe onze mille francs lay jar Sénégal ministère bi moo ko jël élevé ko yóbbu ko ba trente-sept mille cinq cent subventionné ko de soixante pour cent saako urée ñu koy jëndee dix mille saako DAP ñu koy jëndee dix mille ren ministre bi donné par la main droite récupéré par la main gauche la def 3 milliards yi mu génne pour subvention padi bi moom la récupéré waat ci engrais pour hivernage. nee na subventionné woon na ko à hauteur de 73 pour cent daf koy dindi subventionné ko à hauteur de 50 pour cent coût de production yi xool leen ni mu élevé assurance agricole yokk nañ ko OMVS yokk nañ ko granit bokkul woon ci suñu suñu suñu suñu suñu production dugal nañ ko ci ndax tool yëpp a infecté tey ñu ñëwaat ne engrais jóge na 10 000 dem na 18 750 bi mu fi ñëwee taxawul sax dégluñu dafa bañoon wax ak baykat yi pour nga xam ne ministre bi nekku fi pour la vallée du fleuve dafa ñëw tànn saye tànn fu ko neex yóbbu ko fa tàgguwun ñi donc loolu jafe-jafe la mm-hmm. te baax na sa naataango la waaye nga xam ni sa njaboot ni mu leen war téye téyewu leen ko soo jógee si loolu engrais bi daf ni ñu yokk naa ko am na fonds yu may xaar FAO su ma ko jotee naa ko wàññiwaat mais tey fii ñu toll bu ñu ko wàññiwul nan la ñuy demee hivernage loolu jafe-jafe bu rëy la su ma jógee si engrais bi nag dafa am ñaari problème yi nga xamee ni dañ ko fi soulever léegi muy suñu mbokk jigéen ñii fi nekk suñuy yaay suñuy mag suñuy tànt dañ fi am des mini rizeries et des rizeries war def transformation am problème mu fond pour mën a def seen liggéey yooyu nga xamee ne war nañ ko def ay transformatrices ñoo fi toog diis ñu ko dafay baax monsieur le ministre nga wax ak li nga xamee ni mooy banque agricole état jox na leen cinq milliards pour fonds de commercialisation am na ay transformateurs yu fi ne di si bénéficié wu nañ ci dugal jigéen ñi ba ñu mën a tourner seen usines yooyu à part loolu damay dugg si li nga xamee ni moo concerné sa fii tey jeunes yi fi toog mën naa ne aaya moo ñu fi teewal man ak moom ñoo initié li nga xamee ni mooy réseau des jeunes producteurs ngeen baal ma maa ngi fii seen as ñang mi nga xamee ni moo yore commune bu Ronk représenté ñu fa bi ñu taxawalee réseau bi man personnellement ma servir SAED ni ko jàppale ñu pour ñu mettre en place réseau des jeunes SAED ni ma daañ ko def def nañu tournée de sensibilisation def commune yëpp ndax délégation bu Dagana du Dagana kese département Saint-Louis si la bokk parce que Ndiabène Gandiol si la bokk Gandon si la bokk bi nga xamee ni dañu war a def tournée yi SAED ni moo ko jël en charge oto kese la ñu jox lépp man maa ko financé personnellement pour jeunes yi mën a taxaw ñu jóge si loolu jeunes yi tey dem ni dañu am problème waxuma nga wutal leen financement waxuma nga jàppale leen ñu am financement ndax te xamoo looy def doo liggéey dara dama ni jeunes yi ñun programme bi dañ ko agsi woon si les 4F formation d'abord formalisation foncier benn jeune amu fi terrain doog am di wax financement loolu lañu ñu soxla ñu jàppale ñu si bu ñu jógee si programme boobu nag dafa am la nga xamee ni ngeen baal ma rek mënoon naa si bañ a dugg mën naa ko bañ mënoon naa bañ citer nommément le ministre de l'agriculture dam leen di wax li tax du jàppale vallée bi monsieur le ministre nga baal ma si nag ci kàddu yi monsieur Moussa balde moom moo nekkoon directeur Sodagiri bi mu ko nekkee ab Ablaye Seck nekk le ministre de l' agriculture Samba nekk directeur de la SAED vale bi li ñu fiy bay mooy dundal Sénégal Anambé la ñu fay bay pour ñoom lu ñu dundee la union de Bundum sax moo ëppale Anambé di bay le plus grand casier de rizicole de l' Afrique de l'Ouest moo nekk fii si Bundum barrage Moussa Baldé nekk Sodagiri matériel bu génn président ni leen dem leen si vallée pour autosuffisance am loolu moo ko metti mu ñëw vengé wu dafa vengé wu il faut ñu wax du fi ñëw ba taxaw fi Moussa Baldé musul yendu fii su ñëwee du sax déglu baykat yi soo ko waxee mu ni fii président def na fi lépp li ngeen war am yóbbu am ngeen ko loolu jafe-jafe la comme yàlla def na nga teew fi nag dafay baax loolu ñu xamal la ko su ma jógee si loolu nag dafa am benn problème ba nga xamee ni pour wax leen ni Moussa Baldé attanul ministère bi mu yor ñu ni mathématicien la mais un mathématicien ba nga xamee yow mënoo résoudre un problème arithmétique xam nga loolu jafe-jafe la xam nga loolu jafe-jafe la suffisance en riz pro gis nga c'est une question arithmétique parce que autosuffisance en riz dafa yomb a régler ñun Sénégal lan la ñu wax quatre-vingts kilogrammes de riz blanc la ñuy consommer par personne par an su ñu ko calculer c'est un million deux cent mille tonnes de riz blanc loolu tey booy xool boo transformer padi bi 60 pour cent ngay am. donc il nous faut deux millions de tonnes de paddy loolu la ñu soxla pour ñu autosuffisant mais loolu dafa yomb il faut que ñu def xam nga en moyen six ton quatre cent la ñuy def kon saison hivernage ñu def quatre tonnes soo xoolee deux cent mille hectares bu ñu ko mënoon def en campagne contre saison hivernage ñu def cent quatre vingt mille hectares dañuy autosuffisant dañuy am deux millions de tonnes de paddy transformé ko mu jox ñu un million deux cent mille tonnes de riz blanc Sénégal autosuffisant dootu ñu dépendre ci kenn. loolu lan moo koy indi dama ni potentiel bi nekk fii au niveau de la vallée c'est deux cent cinquante mille hectares xam ngeen ñaata lañ fi aménagé di ko bay moyen de cinquante mille hectares les un cinquième kon li président di def naka concentré ci aménagement yi aménagement bu amee rek auto autosuffisance am mais loolu moom mënu ko régler beneen bi ci topp mooy que baykat yi dañ ma yabal. mooy nee nañu ñu jël lettre bi jox la lettre bi nag ma koy leeral doléance yëpp xaju si nii ma développé il faut ñu toog ak président mu indi ay ingénieur agronome indi des techniciens agricoles ñu toog ñu développé mu xam ne li ñu koy wax dafa am mais fii kenn mënu fi la dara si lettre bi c'est juste pour demander audience mais résoudre quelque problèmes yi nga xam ne bu réglé wul yi dañu nekk ci jafe-jafe. loolu lañ ma dénkoon ma la koy jox may tënkee nag di la sant di la gërëm.